yaa ko moom xam nga ni yaa ko moom waral sa woon. dum dum ti daa. Raison de Djourbel, département de Mbacké commune de Touba jaaxle jeex ak Touba Belel Quincaillerie Lepp lu ngeen soxla woon mu jëm ci walum matériel construction bâtiment lepp am na fa ci walum ciment fer ci ay qualité yu bax lool Waye lu jëm ci walum plombier sanitaire ñoma ci doy wo ak lu jëm ci installation salle de bain dañuy jaayit matériel électricité yow mi sa courant daan cher daw sil gaaw ñu jaay la ay matériel yu bax lool ta yaxanal sa poche lu jëm ci walum matériel pièces détachées lepp am na fa Auto, moto ba ci welo yow mi bëgg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 le ci Touba belal kenkaayéer fi ngeen ko japp fofu la lu bax suuf len te ku liggey ñu jëppi la. yes ka ñu ñëwoon na ndaw. mbokk mi ndax da nga yor yobante bu jëmba bu jige bitim rew te nga bëgg ko jaarale ci sécurité rapidité efficacité dawal léegi seeti seen cargo. seen cargo dafa ñew rek jéxal njambatu mudu mudu yek fatu fatu yi ndax coono bi ñu daan ci seen yobante loolu yi dañ na tay kon na kenn ku nekk jël yobantem jox ko seen cargo mo xam fu mu mën di jóge baa fu mu mën di jëm ci bitim réew gaawaay gi kaaraange gi foko tak rek weesu no ba mbokk yi seen cargo yëmul fofu dedet ngir gëna noppalé clientam ci noonu lay indilee service de transfert d'argent bu ànd ak sécurité rapidité ba tey naka noonu vente de billets d'avion kon mbokk yi toogaa jeex na daw leen léegi séti sen cargo ñoo ngi fii ci West Foire cité Mam Rawane su ngeen dikkee di ngeen fekk Jibril Bousso téléphone 77 908 86 15 ba tey mbokk yi mën gëna jokk ak mam Thierno sen cargo depuis Turquie Istanbul sur WhatsApp et autres téléphone plus 90 541 951 95 42 sen cargo votre bonheur fait notre prière mbokki Senegal ak li wër denk leen ma seeni nopp ma xibaar leen cheikh abdul ahad kiman enil na leen produit yu bees produit efficace yi yokku awra produit bo xamne leppam dafa naturel sans cholestérol ñu defaree ko ak ay yo xamne ak gaaw si yokku awra góor wallaay ndeysaan wante cheikh abdul ahad kiman neena yemul fofu ndax dafa beral loxo jigen yi ma ko lan mu ni ma waaw indi naa produit bo xamne ne fay defar fess di defar ay ween ma ni ko ndeysaan ba nopi nak dila jox tay bu nice wante yow goor gi nga xamne da nga new katan cheikh abdul ahad kiman enil la poudre boo xam ne bis boo ko jëfandikoo da nga yëgaat sa bopp si naay wante yemuñu foofu dee ndax indil na leen yeneen produit yu bees muy adiwaas bu bees tàq ma ni ko wallaay daw leen ngeen seeti Cheikh Abdoul Ahad Kiimaan mi ngi Nord Foire Dakar li ko daree samedi ba mercredi 10 heures ba 19 heures dafay fonctionner Touba nag mi ngi fa nekk jeudi ba vendredi wante mbokk mi yow bu fekkee dangaa sori nga bëgg ku la seetal en distance woo ko si numéro téléphone am bii la ba nga dee 77 086 27 29 yaa ko moom xam nga ni yaa ko moom waral sa woor waaw yow suba gaa ngi nii. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. la ko seet. yoroo fi wëñ wëñ bu yàgg bu bu wëñ. amoo wëñ wëñ. waaw amoo maa ngi nii jàkkaarloo góor gi mënuma koo xàmme. almal bala maa kar man. nijaay gis nga xoolal jant bi. bu ma xooloo boo yee yeewu naa ci fajari maam yàlla ba liggéey sama liggéey 10 heures jot maa ngi nii marché laay a dem nii dama doon du sama bagage yooyu nga naan ma ay. Mbathio maa gën sama yéene. nijaay mu ngi tollee 10 heures jot a man nga bëgg a wax. naaj baa nii moo ko mën a wax marché laa jëm 10 heures jot na nijaay yow tamit te dangaa bindante. yow rek demal nga jàpp julli rek ñaari ràkk baax na def ah, ma def ba karmat waaye man dañ maa liggéey man maa dama damaa jóge liggéeyu jàmbur wax na dëgg de ay waay jant bi waay ay waay sama caag bi waay ay bi ay waay ak ma ci amoon yére sama collègue yow démb 22h laa ko façon 10h ci ni yow lay xedde nga def ma nii day dongee ñoom nga la dong dëgg la lii dañ maa liggéey korog tey ci kilifa yi sonn trop maa ngi taxaw. waaw a ma xoolal connexion connexion koor ba xam koor gi ñaata moom moo ci des ñaata moom. ba ñaata moo ci des rek moo ci des. tey moom daa mel ne da ngaa sonn. Eh, daa mel ni sax daa bokk ci joona bi. yàlla baax na. rakamsinga wotu conna rek demak moom daxeeli nijaay wuri sama nay naar naar nijaay wey nijaay naar naar daw su leen wuy yaay sa nijaay londo naar donc defal nak defal nak defal nak lu xew defal nak toogal toogal toogal toogal toogal donc defal nak nijaay yow ñu bañ ñu bañ bàyyi ma xool bàyyi ma xool. tons tons toogal defal ndànk hmm? ko xamul defal ndànk biiram mooy métti defal ndànk toogal hmm. gis nga lii nii dal nañu baree bare baree bari hmm. ci weeru koor xam nga moo ko dal dafa naan ndox mu sedd nekk ko ci biiram te naanu lu tàng gis nga soo wooree journée bépp lekkoo naanu bala ngaa naan lu sedd muy ndox da ngay njëkkee café ci sa biir wala lo xam dana tang pour mu mën yé say butit li dal nañu bari ci wéru koor li ni day indi ay fièvre biir bi met ak yeneen jangoro mhm. dañ koy wax sax boo def sport manam bo sonné njëkkal nan touti ba sa biir yow nga do ko nan lu bari lool nak moko dal may dara jutu ko xam naa bu toogee touti dana ñëwaat inshallah allah bàyyi toogal toos bàyyi ko mu na toog nii rek na tàllal tànk na biir bi mën a ubbeeku gis tons tons mana naar la naar man Ablaye naar naar Ablaye Pël Ablaye naar nga am Ablaye Pël taalo ko tànk yi c'est bon c'est bon c'est xanaa yëgul lu xew fee laa wax. yëg naa ko lan ngeen bëgg. dem xool ko comme niñ ko xool yi dama ko. xaw ma ko. très bien waxuma li ko dalew. dal dara lu dul maanaam xam nga ak ragal fooram. ñu bari nag jàpp nañ ne bu nu wooree ci weeru koor ba mat. Mhm. bu ñu ñëwee bisimilah dog jot na li ñu war a njëkk a mooy naan ndox. te loolu baaxul ci biir bu yaram mën na indi ay gàllankoor ci sa biir bu ne dog jot na boo maree dangay ngay jël ndànk nga naan lu tàng ba say guti yeew mhm. nga doog a naan ndox yow nag sant naa la gërëm naa la. jàngoo nag. waaye gëstu nga ba xam lu baax. saa su doog jotee da nga ñu wax jël leen tàndarma. jël leen café doo ko jël ndox looloo baax ci wér gi yaram. waaw moom jàng na de xamoo jàng soo jàng laa jëfewu dara. merci. dof man la dof bu jéggib liggéey di falax falax. xaw ma jéggib liggéey bi waaye yore koy wallu hmm? ñëw ma

shahru ramadana ak nugum nugumi shahru ramadana ak sabar-sabar Ramadan Ramadan